propos yi ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. waaw Moody's ma wax loolu Moody's. Euh, hmm. Moody's moom daa wax ne euh, Sénégal daa dem point point point lan am na point trois xamul la nekkoon mu wàcc ba point euh, deux am na ko waxee daal mais daal ni yéegoon wàcc na. wàcc na alors ba mu defee loolu nee na li ko waral mooy. Hmm. problème mu performance. performance économique la économique boo xam ne dafay stable. mais mais ci mm. foofu euh, mm. faatu comme ni kiy wax ba mu mayee rek lu ma ci mottali. Mm. muy cent cinquante cent cinquante cinquième wala cent cinquante quatrième. la Sénégal tolloon avant Macky Sall di yéeg ñu ngi cent soixante neuvième tey maanaam boo perte fukki euh, point ak juróom équipe Sénégal ñaata point la perte pour ñu waaj pour ñu ne Aliou Cissé nangam ak nangam. pourtant bariwut maanaam même chiffre yi day weddi Macky Sall di tëkkal Ousmane sonk parce que loolu moom ci àdduna bi la nekk muy suñu PIB ak nangam-nangam Sénégal dafa jóge ci cent cinquante quatrième wala cent cinquante cinquième dem cent soixante neuvième maanaam maintenant ci sa ñaata cent quatre vingt cent quatre vingt boo ci jëlee cent soixante ñaata mooy des. maanaam boo jógee cent cent cent cinquante cinquième dem cent soixante neuvième ci cent quatre vingt douze pays ban rang nga am léegi maanaam yaa ngi ay vingt deux pays le plus pauvre mm-hmm. te alors que yow yow ñi ngi doon wax au lieu vingt deux pays le plus plus plus bokkoo woon foofu ci bi Macky Sall am na fu ñu tolloon dafa nekkoon vingt cinquième mujj na wàcc demaat ba vingt et unième nekk vingt troisième vingt troisième pays le plus pauvre te alors que ñu ngi la fekkoon bu ñu doon xool dëkk yi gën a pauvre yaa ngi doon nekk ci juróom fukk yi wala juróom fukk nangam ak nangam nga wàcc loolu mm-hmm. képp yeggada loolu rek laa bëggoon a wax ci kii bi dolli ko ci waaw xam nga Moody's ñoom dañuy def euh, euh, dañuy dañuy def notation alors notation sukkandiku ci euh, lu ñu am ci chiffre dëkk mm-hmm. ak réalité économique dëkk xool ndax est-ce que dëkk boobu am na performance économique Mm-hmm. est-ce que yaa am na stabilité aussi économique. Mm-hmm. léegi ñoom bu ñu paree dañuy génne seen i rapport seen note ne Sénégal comparé à daaw ñu yoon ci kaw ça va. Mm-hmm. wala mënoon nañu jóge na ci pays stable. voilà ci pays à risque mënoon nañu mënoon nañu ne mu ngi dox waaye jamono jii de euh, doxul wala risque la. risque risque la ñu nekk parce que seen économie moom dara doxu si. wala même buy dox aussi mois euh, moitié lay doxee léegi nag FMI aussi dafa ñëw moom waxaat euh, ci si ci en laps de six mois parce que deux fois la fi ñëw euh, ci premier trimestre bi dans son rapport mhm. FMI daf ne les perspectives économiques du Sénégal se son améliorées donc c'était juin maanaam fu ñu jëm fu ñu teg seen tànk bu ñu bàyyiwul mhm. ci wàllum économie dina gën fu ñu bàyyiwul yu nu gën mu dem bi bind sax am ngeen xaalis bu fi nekk restant foire noonu ñu utiliser xaalis boobu ñu ñëwaat septembre trois mois plus tard ñu bindaat ñu ne les perspectives économiques du Sénégal se sont dégradées mooy fi ngeen teg seen tànk solo ko tegguwul mhm. day gën a bon day yées parce que daa yées ba pare daa ba daa bon ba pare soo leen ci teggul seen tànk day gën a yées day daf dafay gën a dégradé wu donc vous êtes dans ce qu'on appelle le niveau dégradation vous étiez dans l'amélioration léegi yéen a ngi ci dégradation léegi diggante amélioration ak dégradation entre ces trois mois la lan moo waral lu ñu tuddee cette dégradation de l'économie sénégalaise loolu mooy la véritable question mhm. dañu ne économie réew c'est comme kër boo ci investir nga yore xaalis wala yoruloo xaalis nga war a am projet investir aussi bis dina ñëw di nga bëgg dépense mu tëla wala nga dem lebi mhm. loolu moo fi am euh, état dafay am investissement investissement mooy nga am projet yu faar yoo teg mu créer richesse mu créer mhm. emploi diggante mars 2021 ba lii may wax ak yow l'état du Sénégal n'a pas n'a pour n'a investi sur aucun projet jamono bii laa lay waxee mars ba waaw amul benn ministre bu lay wax bu lay weddi lii ba léegi amul benn projet bu nu investir quand boo investir ci projet jàppale li nga waroon am ci naataange ci projet yëpp contraire bi ngay am. mais dëkk bi daa taxaw. ah léegi moo tax muy taxaw du la du taxaw li tax muy taxaw c'est très simple. Mhm. defoo investissement soo ko defulee mënoo créer emploi boo fekkoon donc taux de chômage bi ci benn no chiffre. mënoo ko mënul weesu mënul mënoo mënoo ko réduire day yokk. parce que chaque jour sénégal yi chômage bi day yokk ñi nga xamante ni amuñu dara mooy li li li le taux de d'occupation boo ko doon comparé. Mhm. Euh, jamono bële ANSD nee na c'est 40 pour cent mais léegi léegi nañ bindaat beneen ñu wax ñu ñaata la day gën a yokk mooy ñi nga xamante ni du ñu ay de. Mhm. ñoo xamante ni dañuy xëy jàppuñ ci dara. jàppuñ ci dara maanaam des gens qui se à 10 heures xool yaay nii yaay dem lijjanti dépense bi midi 14 heures añ bi des fois day dem ba 16 heures parce que fa cóol midi dañ ko lijjanti amuñu ko diggante boobu ñooñu ñu ne ñoo xëy ñu ñu amuñu fu ñu jàpp ba tey ñooñu dañoo toog amuñu fu ñu jàpp léegi nag pour ñu am fu ñu jàpp da ngay investir nga créer de nouveaux emplois en créant de nouveaux emplois tu crées de nouvelle richesses Mhm. parce que quand sans emploi y a pas y a pas employé employé amul employé. Mhm. léegi ñooñu bu ñu amul fu ñu liggéey dañuy toog fii di xëy rek nga leen di compter waaw diw bokk na si ñu amul xëy nga romb leen ci koñ bi euh, des nga soxla ñu dem wuyu ji léegi nag loolu euh, bu dee defoo investissement en tant que état da fexe ba mu am li ñu tuddee des investisseurs qu'ils soient des sénégalais ou des étrangers mhm. l'essentiel qu'ils investissent ñu ñëw ci réew mi parce que un chinois qui au Sénégal crée benn industrie bu moo xam fu mu koy créer je pense que sénégalais bi kan moo ci liggéey top management bi mën na nekk ay chinois. mais les mhm. ouvriers la majeure partie. c'est sénégalais des sénégalais. Mhm. et de ces sénégalais là c' est des employés et c' est des nouvelles ngay créer parce que ku ci am salaire di nga dellu sa kër def si sa kër. soo si amee salaire bu baax di nga tabax sa kër di nga jënd sa terrain te boo jëndee sa terrain tabax ko di nga di nga jël maçon. Mhm. kon yaa ngi créé yow mi ñu créé emploi yaa ngi créé yeneen emploi parce que booy tabax sa kër maçon bi dina ñëw. Mhm. électricien bi dina ñëw borom charrette bi dina dina la indil ndox. Euh, mu kii muule dina la indil euh, kii usine bi jënd ciment di nga dem jënd mu yokk moom capacité de sa production journalière donc loolu moo tax boo deful investissement lii yëpp waroon am day day taxaw. Mhm. cest à kuy jaay ciment mën na bëgg a jaay mais du kan la lay jaay. si dee saa tabaxul coon tabaxul. faatu mhm. tabaxul. jëwli euh, njaate tabaxul. soo <laughs> jaayee lay jaay ciment. dañ lay jaay ciment bu la doon wax donc maa ngi produit par jour eh, ñaata cinquante mille tonnes kooku dina dem ba dootul produire cinquante mille tonnes parce que bu dee da ngay nga koy rimer kenn du ko jënd amul sens hmm. donc il faut ñu def ñu ñu def ce qu'on appelle ñu aller dans l'investissement moo tax le plan euh, deux mille cinquante c'est tellement ambitieux hmm. mais man sama crainte yi te am na benn soxna bu ko bind man foofu la économie nga nga sa waa réew yore ko am na solo lool mais est-ce que waa réew mi am nañu capacité financière yi pour mën ko yor te mooy la véritable question nga def financement Sénégalais yi ñoom seen économie mu ngi nii yéen a ngi nii dañ doon leb di ko defar léegi lebatuñ di ko defar léegi yéen achat na ngeen ci taxaw mu jóg est-ce que yi am nañ seen capacité financière quand je dis ces Sénégalais là je parle pas des Sénégalais chômeurs mooy Sénégalais yi nga xamante mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo les les investisseurs. Mm-hmm. ay ay ay ay ñoom Ngom ñoom Youssou Ndour ay ñi nga xamante ni ñoom ñooy Yérim Sow. ah ñoom Bougane au mu nekk politique c'est un investisseur. il a des boîtes qui font des milliards par par année ñooñu da leen ciy boole ñoom ñoom El Hadj Ndiaye ñoom Youssou Ndour. Mm-hmm. comme yeneen Sénégalais yoo xamante ni kenn xamul leen ñoom Serigne Mboup. donc ñii est-ce que ñoom kii euh, la Sylla par exemple c'est c'est des milliardaires. Mm-hmm. ñoo xamante ni c'est des investisseurs des industriels sénégalais ñu boo buggee ñooñu industrie bi nekk sénégalais ñi ko ñu koy financer genre ñooñu ngay aller rencontrer. créer également d'autres Bougane d'autres Yérim Sow d'autres Youssou Ndour d'autres El Hadj Ndiaye d'autres Serigne Mboup et cetera comme am na ñoo xamante ni soo demoon Touba tey mais c'est des milliardaires ñoo xamante ni ñu ngi dans commerce mais kenn xamul leen. Mm-hmm. te pourtant dañoo yore seen business di ko doxal léegi nag man sama crainte foofu la est-ce que le Sénégalais a les moyens de financer son économie léegi yow foofu ma mm-hmm. tontu la ci xam nga bu ñu nee ci Sénégalais yi lañ koy jëli képp kuy homme d'affaires da ngay comme dañ leen a jàppee ay juuti maan nga defee ne yow lañuy juuti dafa am sénégalais yi ñu ciy fay impôt dañu néew léegi dañuy yàkkali mbir mi maanaam yeggoon ci sax mën a wàññi 18 pour cent bi ñuy teg ci TVA mu nekk 12 pour cent wala mu nekk 15 pour cent waaye bu fekkee ne yow cuun ak euh, jëwriñ rek ñoom ñoo fi ñi fiy fay léegi ñu fexe ba saa wolof xam njariñul impôt keneen ak keneen xam ko kenn ku nekk ñuy jël ci yow mool bi teew géej ak gaalam parce que ni ma ko waxee yaa ngi doon jël licence de pêche yi di ko jox bitim réew nga jël licence de pêche yi léegi joxeetoo ko wala nga wàññi ko bàyyee leen ko ñu gën a am jën ku teer bu yabee ba yab gaal nga ne ko am naa ci temps de caisse loolu gënoo yaatal mbir mi fi ngay jëlee impôt te ci doomu Sénégal nga koy jëlee xam nga nit ñi ñii ñu waxee fi ñu bëgg a dem ku nekk dangay ngay tiit boo dee homme d'affaires c'est très normal ñoom ñiy tiit dafa ne ñoom la ñu teg bët mais tamit euh, ñi yore impôt dañ ko war a fay waaye dafa war a wàññeeku mën naa wàññeeku voilà mën naa wàññeeku dem ci kenn ku nekk maanaam sénégalais yi ñëpp di fay impôt parce que boo xoolee ñu nekk secteur informel hmm. te fayu ñu état xamu leen nga fexe ba état xam leen ñuy dem ci ñoom ñiy fay li ñu war a fay dañ koy fay ak fierté waaye nag bu ñu fayee ba pare mooy comme doctrine Touba ca kanam laaj lu ñu man di ko def fu xam mooy nga fexe ba nit ñëpp di fay impôt mais du fay lu yam loolu yaatal nga ko beneen bi mooy li nga wax sànq ci euh, kaawu FMI ne daf dañu ñëw visiter ñu ne fii ngeen nekk bu ngeen fa jógee wul nàngam ci yan chiffres la ko FMI def est-ce que dafa ñëw def ay propre enquête am wala FMI état Sénégal moo ko daan jox ay chiffres loolu tamit c'est bon à préciser surtout FMI wan nañu ne wala li Ousmane Sonko ñëw wan nañu ne FMI ci chiffres yi état Sénégal daan sukkandiku nga xam ne dafay sous-estimer pauvreté du wax tant de pauvreté moo fi am ni Sénégal toll ci lim sax da koy nëbbu comme disait Tafsir Thioye depuis 2014 mi ngi leen koy wax bàyyi leen chiffres yi ngeen di fen di fen sénégalais yi di fen ñooñu loolu Ousmane Sonko moo ko mujjee wax. Ah. léegi bu fekkee ne FMI li mu daan jël ci ay fen la ko lañ ko tegoon di ko jox mu basé ci fen yooyu ba noté la ne la yaa ngi dox fekk mooy sàq mi te lekkoo dara fen di terlo maanaam ne am naa oto am naa lay fekk amoo dara ndax ndaw si bañ tàkk ko ndaw si ñëw ci kër gi xam ne yoroo dara bu amee ful dafa la fay wàcc. léegi nag boo fa mm. amee keneen ku la wutu ndaw si nag taxaw wax dëgg gi ne maa ngi nii temps de pauvreté laa am bu boobaa c'est très normal bu FMI ñëwaatee tiim chiffre dëggantaan yi ne ndekete yéen day joge ngeen ci état stable wala peu stable yéen a ci zone de risque dëgg nag man li ma gëm mooy lu mu la may du la ko xañ fen lu mu la xañut du la ko may moo ñu indi fii na ñëpp xam ne fii ñu yegg si dafa am fu ñu nekk heureusement que Awa Jaxate wax na ma ko 37e per euh, pays lañ nekkoon ci sur le rang mondial bokk ci gënoon a bi ñu Macky Sall yoree ci 10 ans lépp fi xaalis nag lu Abdoulaye de Masta yor maanaam euh, dépense fi lu Abdoulaye de Masta dépense Abdou Diouf tous les trois présidents réunis soo leen boolee seen budget bi ñu am yépp de 1960 à 2012 mi ngi ci toll 21 mille milliards 900 millions Macky Sall seul ëpp na 50 mille milliards. maanaam duble na ñoom ñoom ñetti président yëpp li ñu jox Macky la ci xaalis li ñu jël lépp ci ñun ak yooyu te lim ñu bàyyee ci bor Abdoulaye mi ñu bàyyee woon deux mille quatre cent soixante onze milliards mi ñu yóbbu tamit seize milliards. loolu yëpp bi mu ko defee ba pare waroon ko investir ci luy dox Macky Sall jëlee nañu ci fanweer ak juróom-ñaari dëkk yi gën a pauvre yóbbuñu ci ñaar fukk ak ñetti dëkk yi gën a pauvre lii mooy chiffre Macky Sall duggal fu la neex. léegi kon Macky lu mu def ñii moom ñu ngi doog a ñëw. lii ni ñuy doogee ñëw nag sànc bu taxaw bu doon drogue a koy taxawal est-ce que ki jaay drogue dafa war a mën a ñëw jaay drogue ba pare wala muy cagatuloo waa koñ bi di tabaxi kii léegi yow boo ko xamee doo taxawal tabax yi dama joxe exemple rek juste pour loolu. ah non non non ma néew ma loolu damaa wax ne comme ñiy wax loolu faral di wax ba naan bâtiment yi ñu nekkoon ci littoral bi temps de maçon ñëw fa doon xëy nangam nangam mais bu nekkoon ne nekkul ci yoon nag est-ce que nit ñi duñ taxaw bañ xam mbir mi mu leer. ñu doo ko départ ci base yi ñàkk a départ ci base yi moo tax ñi ñu départ doon ñëpp raw nañu. d' accord léegi euh, Thioune da ngay. en tout cas li ma li ma bëgg a wax rek mooy. Mhm. réew moom boo ko investir wul. Mhm. ah mhm. Euh, mu créé yëfu boppam. waaw léegi boo ko investiree nga créé naataange. léegi Macky Sall dafa investir moom. léegi ça damay man man ça. non dañoo nekk ci di non déedéet non waxut lu ñuy wax Macky Sall moo ñu yoroon ñii ngi doog a ñëw 6 mois. léegi ça man man li may wax ça ça li a la dafa leer dama ne depuis mars 2024. waaw. ba tey 2024. Mhm. nous sommes au mois d' octobre. waaw. y' a pas eu d' investissement fait par l' du Sénégal. Mhm. loolu la wax. waaw. ma ne bu dee amul investissement bu nu def. jàppal le taux de chômage boobu ñu waxoon ne dafa yokk. dafa mën a hmm. yokk. waaw dafa nekk 23 mën nañoo dem ci 22 ah, wala 19 waaw mooy le taux de chômage bi dafa yokk. mooy le hmm. taux d' occupation aussi dafa gën a yokk. bien sûr kon taux de pauvreté dafa gën a yokk. day gën a yokk ma ne la donc. waaw lii solution bi mooy du Macky Sall Senghor Abdoulaye Diouf. Hmm. solution bi mooy. lii yokku na nan lañ ko fiy jëlee ndànk-ndànk progressivement waxuma la brut brutalement. loolu ci lañ nekk ci lañ nekk. brusquement parce que mooy nga setal environnement d'affaire bi ba mu set ba pare doog a tabax jëm kaw. léegi waxuma loolu de waxuma loolu de yow li ngay wax man yow waxuma loolu de dama ne dama ne euh, nañu jublu ci investissement ñu jógee ci jiwu def na ñëpp xam nañu. li ñu def keroog lu mu doon li ñu def keroog gaaral fi ñu war a dem pare pour dem dox dem ci yow da ngaa yaakaar ne liggéey architecte bi day xëy rek maçon bi day ñëw rek non da ngaa yaakaar ne bâtiment non non non déedéet déedéet dépassé wuñ lañ taxaw ci lañ taxaw ah, non parce que yow na nga mën a justifier daal ñii def 6 mois li ñu def fii lañ ñu yóbbu ba pare yow ignoré ñi fi def 12 ans non non il faut qu'on soit honnête gis nga taxaw naa man mi la wax tànk expliquer la investissement boo ko defee ci grosse infrastructure expo bi man ma expliquer la ko expo bi kon ma expliquer naa la ko entre yow ak Thioul man ma dafa leer xam nga dafa ne depuis mois de mars ba léegi bon investissement amul nga wax amul ci benn projet amul donc loolu naka lañ ko mën a jàngatee xam uh-huh. fi mu affaire bi loolu foofu léegi question boobu moo ci war a ah. tegu lan moo tax état bi ba mu ñëwee léegi waaw wu ci benn projet. Mm-hmm. est-ce que ñi ko jàngatee ci état bi dafay def état de lieu. lieu comprendre nga nga xamante ni bon des tubaab dafay wax naan reculer pour mieux sauter. Mm-hmm. mais recul bu solee tamit. waaw bon bon yow sa sa perception la yow. <laughs> sa perception la yow côté boobu. Euh, je pense que ne critique yi d'accord critique yi nga xamante ne